Euh, dañuy dem seeti nag élément koo xamante ni personnel u TFM la bu ñuy commencé ça fait deux ans mais fii nañ ko fekk moo daan def si vous vous euh, amoon na à un moment donné TFM ubbi ay buntam ngir képp koo xamante ni sénégalais nga nga ñëw dugg xool télé bi naka lay doxee xool matériel am xool nu ñuy monter nu ñuy tourner et cetera alors kooku noonu nga xamante ni nag moo doon euh, guider nit ñi mooy yàgg. yàgg yàgg na ci TFM yàgg nekk na nit ku baax moo tax nag tey TFM àndandoo nekk benn ngir ñu mën ko sargal koy kan ak fête des naka la koy dundee dañuy ànd tout de suite dem seetaani ko. mbokku téléspectateurs yi comme niñ leen ko waxee woon. tey la fête des mères euh, ñu daal di ñëw nag tey fii ci HLM Grand Médine HLM ki fi dëkk mooy Ibrahima Yàgg di chef montage fële ca TFM tey moom la ñu ñëw seet si bëgg ànd ak moom daal di teral suñu mama Ibrahima Yàgg ñu ngi lay nuyu. Mm, maa yaa ngi ci jàmm. alhamdulilah. waa tey dañu ñëw seet si la bëggoon rek nga wax ñu tey lan nga waajaloon a bégale bi tey ci fête des mères. Euh, déjà man je pense que pour pour bëggeel ko moom li mu gën a bëgg mooy au moins que ñu yëg ko et muy gis toujours njabootam ci wetam. Mhm. et je pense que ça c'est c'est c'est l'essentiel bu ñu ko mënee def dañ koy def leneen lu ñu mën a indi derrière mhm. moi je pense par rapport ak moom euh, logique bu muy demee tout ça c'est superflu parce que sa yaay munoo ko may. lu ëpp lu dul mu lay gis ak fi nga yëg ko mu xam ne vraiment yëg yàgg sànq ba léegi yaa ngi wax di jël sa loxo di ko teg ci sa xol mu leer la ñu tey ji li ngay wax da nga ko gëm et puis looy xalaat la mu nekk ci sa biir xol donc tey lan nga ñu mën a wax ci sa yaay fi nga toll ci moom. Oh, du ma du wax sax fi mu toll noonu moi man déjà je dirais que dama ko dama ko sonal ci aspect yu bëri euh, dans un sens je dirais que. Euh, comme, comme meilleur ami, je veux dire que c'est tellement meilleur ami pour commencer. Si vraiment il y a des su may xalaat sax kan laa ko war a njëkk wax vraiment moom laa koy njëkk wax et je pense qu'elle me wax lu amul. Euh, deux deuxième aussi je pense que elle m'a responsabilisé assez tôt. et c'est par rapport à ça que un aussi ma xam àdduna buy ci lu bëri nu muy doxee et je sais aussi sonal naa ko ci lu bëri. Et par rapport à ça aussi, j'aimerais au moins que chaque jour que Dieu fait, mu baal ma ak ci li mu ko mës a def lépp. parce que xam naa ne yàgg naa di ko tooñ mais si ci ay ci tooñ ko laay dëkk aussi et je que loolu ku dul sa yaay du la ko mën nangul ak keneen ku mu mënti doon aussi. ñun gis nañ également que ñun ñun ñu liggéeyandoo ak yow gis nañ ni yàgg ku yaru la ku dal la ku mën a déglu la loolu yar la te yar bu ñu xool yaay moo koy def ci nan la ñu def tey ba nga mel nii tey. alors je sais qu'elle a été très très rigoureuse par rapport ak suñuy étude par rapport moi je me rappelle bu ñu nekkee xale ak loo bëgg bëgg seetaan télé yaa benn heure bu jotee tu sais que ne même bu fi nekkul toi tu as intérêt dem tëddi parce que bu la fi fekkee du baax ci yow et je pense que loolu aidé nañ ci ci lu ci lu bëri ensuite moi je me rappelle bi ñu nekkee primaire yu bëri moi je me rappelle peut-être mosuma ko wax mais sama exercice yu bëri moom moo ko daan corriger en étant à l'école même ak yeewu 6 heures euh, c'est-à-dire 6 heures du matin boo yeewoo le matin moom moo lay yee après da ngay njëkk julli ji ba pare boo jullee ba pare après tu es obligé euh, balaa ngay ndékki nga jël sa kaye nga dem réviser sa leçon ba pare nga soog a dem mën a xalaat leçon moom bu mokkul doo ndékki donc tu as intérêt à jàng sa leçon bu baax ba xam exactement lan nga war a def quoi dans la journée. loolu yaay ju attentionné moo koy def ndax mën nañ wax loolu ci moom. waaw waaw est elle est wax dëgg yàlla et elle veille un peu que bugul bugul lu lu metti doomam wax dëgg yàlla euh, moom bu sañoon toujours lu doomam bëgg dina ko am mais toujours aussi day fexe xool lu mu doon lu lu gën ci doomam parce que moom je sais que euh, elle très. elle est très engagée ci par rapport ak nit ki lu muy def parce que dina veiller toujours pour xool ndax lu baax la lu wala lu bon la même boo ko soree man peut-être bi yàgg naa dëkk man kese mais mois nampes ak lu ma dëkk man kese kese je peux pas une journée même su su dee damay guddee guddee guddee yenn waa ci mu wàcc minuit mais n'empêche damay ñëw fii xool ndax mi ngi fi ndax na et puis souvent lan moo lay gën a yokk courage mooy da ngay ñëw. ñu ne la sa léegi loolu doon laajte wala mu woo la wala mu ne bàyyi na la reer bi mu ngi fële donc ci waa ça c' est vraiment autre chose. kon na xale jigéen ñi ñuy seetaan euh, jege leen maire bi mu wax leen li nga xamante ni mooy secret yi yàgg ku baax la euh, mbokku téléspectateurs yi yàgg li mooy gaamu patisen bi patisen nag gis nga ko dañuy defar aja ci bër Euh, pot mag baa ngi nii euh, chocopin bi ngay dégg mu ngi ne baax lool ci mag waaye tamit euh, ñi ngi ci ak tàngoor ñëpp a koy ñëpp ngi koy jëfandikoo parewuñu ci loolu ñu ngi ànd ak dolli bu ñu paree également Adja Doore Adja Sóoraale dimbali daal jigéen ci biir waañ lii moom boo ko ko joxee du mer. waaw surtout que moom dafa nekk nit nit ku bëgg waañ en plus. moi j'aimerais bien que à un moment aussi qu'elle se repose mais moi je me aussi ak même bu nekkee maire yu màgget yooyu sax kenn du ko mën teree dugg ci waañ bi donc pense que c'est en des yenn yu muy utiliser la déjà ci lu bëri donc je pense qu'elle pourra se retrouver facilement. kon dina retrouver wu mooy gam bi pare gu ñoo ko yow nañ ko tegee nii jox ko meer ma déglu si bi ci topp mooy gaamu takkamun gis nga ko podoor la di tamaate boo xamante ni jéeg jaa koy jëfandikoo ci biir waañ ñu def ko ci pot def ko ci ay sachet teg ci nag lii mooy ketchup bi nga xamante ni moom lay àndal naturel lépp kon nag dañ ko boole ci cadeau yi moom lañ la andi. mooy c'est déjà une chose mooy ketchup bi dina ma ko mayaat parce que dinaa ko yóbbu sama kër déjà ça ça je sais parce que bon maa ngi sama ay frères aussi et je sais un peu leur alimentaire par rapport ak yu bari même si duñu duñu tëkkale lenn ak seen togg yaay et je pense que aussi euh, surtout que moom je sais qu'elle cuisinière mais particulièrement elle fait bien le ceebu jën donc ça ça tombe bien quoi. gaamu Podor bi nag ma koy wax jeeg ji ngir ñu koy jëfandikoo ndax am na solo euh, double concentré la am na ci pot am na ci sachet teg ci ketchup bi koo ko jox du mer nañ ko tegal mer bi dellu si waat NMA Sanders tamit nee nañ du ñu seetaan ndaxte ñoom it jox nañ ñu ay produits ngir ñu andil la ko ngir suñu mama farine pâtissière baa ngi nii mu mën cee defar ay crêpes lépp lu farine di dem moo ci gën ndax dañ ko defar ba mu baax boo paree ci loolu euh, lépp a ngi nii ñoom pasta mi euh, lépp a ngi nii daal ñoom spaghetti lépp lu baax ci mag boole nañ ko ci ci sachet bi pour nga jox ko suñu maman. ça moom c'est eh, c'est des choses qu'on aime bien nous nous les célibataires. les veilleurs de nuit. <laughs> voilà parce que c'est assez consistant et puis c'est c'est vraiment intéressant bon mais aussi mère bee ko comme je dis et je sais que. Euh, dans la semaine si je repasse pour toujours en ramener chez moi d'accord. ci lii nag may wax mbokku téléspectateurs yi ni pasta mi toj na dëkk bi xale yu góor yi moom la ñu taamu mag ñi moom la ñu taamu farine pâtissière bi nag moom laa leen gën a wax ngeen koy utiliser ndax am na solo lool fu loo ko laaj mu delloo la ko enema ñoo leen ko andil kon nag boole ko ci suñu loo yi rek ñu tegal ko suñu mama. nag li xale yi jigéen yëpp di wër am teint doo am picc set wicc mooy te strong TDK ñoo la ko andil ngir ñu jox ko suñu maman dalay delloo sa jeunesse savon la diw lépp ngi ci biir huile boo xamante ne nii day defar sa yaram nga delluwaat mel ni xale bu ndaw boole nañ ko ci moom tamit jox ko maman. waaw bon ma xanaa xanaa ma jox ko ko rek mais je sais que dans un sens elle va essayer de garder ça pour peut-être ma future femme ou bien elle va donner ça à d' :fra accord :fra